ñu di la nuyu. Mbaye maa ngi lay fay du nuyu waa Thiès 24 du nuyu tey jii képp koo xam ne tey jii aussi yaa ngi nekk ci mbiru làmb amateurs yi spectateurs yi mais surtout di leen gërëm di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen ñu ko ciy defal. seen seen nga téye loxo président tiim ko di wax di wax doo ko président mooy bi ñuy def euh, pose première pierre bi. arène nationale dama ne ko monsieur le président. à qualité de représentant des euh, autres régions du Sénégal doon nañu ñaan ñun tamit pour collectivité locale yi mën a am aussi ku ci nekk arène régionale. loolu yëpp dina bokk ci développement yi moo tax ñu bëgg aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy diriger collectivité yooyu président mën leen a appuyer parce que loolu ñoom rek duñu ko mënal seen bopp loolu laa ko ak keroog moo tax ci message bu mu ci tontu mu ne vraiment il pense à ça te bëgg na aussi région bu ne am làmb te président boo xee ñun de dinañ ko mën a gëm ndax li tax ñu koy mën a gëm. bu la yee eh, jox la ndékki bu la nee di nga añ rek di nga toog ci taatu ci la di ko xaar ndax bu ñu tabaxalee bijou bu mel ne la pour 32 milliards ni ñu bëgg naa aareen yi nekk ci am ci région yi vraiment Macky Sall maa ngi lay gërëm di la sant man nag a Thiès il faut ñu xam ni que ni nit ñi ñu ñuy jàppale bu baax et je suis aussi incontournable parce que li tax loolu mooy li ñu am ñu ngi koy delloowaat ci dëkk bi vraiment ñuy mobiliser aussi di jàppale nit ñi ci liñ ciy amaat te loolu mooy politique de jeunesse. président bi ñun ñoo ngi koy jàppale ci politique de jeunesse bi en offrant des emplois donc boo xoolee Sidi Diakhaté production une vingtaine de personnes ñu ngi ci sama ginnaaw di ci gravité nga xool l' ensemble des lutteurs qui gravitent autour de cette région plus de 2000 personnes te ñoom ñëpp ki lamb lañ yaakaar te man je la seule personne boo xam ne maay promoteur bi war tëgg lamb yi foofu kon nag maa ngi wax ci président de nga gestuwaat promoteur yu Thiès bi ñuy wax Sidi Diakhaté ci liggéey bi. lan moo doon say tànk fii tey ci Tivaouane. waaw comme ni nga ko xamee man dama nekk promoteur boo xam ni ci région bi laa dëkk te yàlla def na aussi à chaque fois bu may tëgg damay jël ci région bi ay mbër pour nga mën a xam mbër mu ne xam aussi potentiel ban la àndal xam aussi lan mooy na ci ginnaam il faut ngay jóg di fekk ji làmb ji looloo waral malgré tey jii sama xarit Pape Abdou Fall mi ngi tëgg dakaar mais tey bu ma xale yi invité promoteur yi nekk ci région bi damay obligé léeg-léeg aussi ñëw fekk si leen parce que chaque fois tëgg Thiès aussi dañuy ñëw décentraliser làmb eh, eh, est-ce que yomb na lan mooy ay jafe-jafe. décentraliser jafe na parce que tey jii boo xoolee man maa ngi bëgg a ñëw fii à Tivaouane pour di waaj def si drapeau alelo ak drapeau ki nga xam moom mooy muy Seynabou Gueye Touré di sama euh, jigéen mais surtout rawatina nag le maire Diagne Sy Mbengue parce que ku nekk gis na liggéey bu rafet bi nga xam ne mi koy def ci dëkk bi. te soxnaam aussi di kenn ci man di ma jàppale baax ci liggéey bi may def bi moo tax monsieur le maire may profité di ko nuyu mais surtout du nuyu sportif yi nekk fii yëpp ci biir dëkk bi. di la wax ni sax d'ailleurs boo xoolee dimanche bi di ñëw le 22 dama war a tëgg à Thiès mais euh, grand combat bi koy bëree mooy turbo bi nga xam ni moom moo dëkk tey jii Tivaouane moo koy bëree ak métro bu jabaas ci drapeau Alioune sar ministre du commerce. Euh, mais décentré la si làmb yow yow ci ci ñi ko jëkk a def ci nga bopp ci buñ ci seet seetlu ci région yi est-ce que boo ko organisé est-ce que di nga ci mën a génn bu baax réellement. bon làmb dafa jafe. ni nga ciy mën a génn rek mooy su fekkee am nga ay support ak ay personnes ressources déjà booy tëgg à Thiès am na ñoo xam ne ay personnes ressources la ciy jàppale am na ci aussi ñu mel ni ay Séréja DG de la DG de la Poste moom it daf may jàppale bu baax ay Maodo Malick Mbaye ak ku mel ni Abdou mbaw muy suma xarit di kenn ci man di jàpp di ko xam ku mel ni Pa Iba Ndaw moom it day jàpp suma bis donc du ma la waxee daal vraiment am na ñu bëri ñu ciy jàpp. rawatina nag Yugo saw mi nga xam ne moom moo nekk aussi sous-costume du patron bi ak euh, la prévoyance assurance ñoom ñooñu ñi dañ may jàppale société yooyu yëpp di ma jàppale ak aussi ku mel ni groupe TFM aussi li ñu may jàppale lépp aussi ci liggéey bi may def ba mbir mi di mën a saaw fu ne presse bi nga xam ne mooy la presse locale aussi bu may tëgg ñoom ñëpp ku ne da ngay ñëw di ci bay sawaar pour que di Diakhaté di ci mën a am réussite bu am solo kon mooy gërëm aussi presse locale bi parce que suñ demee ba dégg ma fenn fi à euh, le Sénégal à travers l'Afrique le monde entier c'est grâce à la à cette may wax ni daal vraiment aussi spectateurs yu Thiès yi le public thiessois Sidi Diakhaté ngi leen di gërëm di leen sant ministre Alioune Sarr ren mooy quatrième édition bi ñuy waaj def. donc euh, ñu koy def dimanche le 22 bi ci stade Maniang Soumaré ñu am 10 combats d'ailleurs combat Pape Mbaye bi ak Lat Dior rek. doy na grand euh, combat rawatina nag métro bu Jobaas ak turbo bu Tiwaawan muy bis boo xam ni bis bu mag lay doon ci Thiès ñu war ko fa def décentraliser ku la wax ni la làmb ci région yomb na waxul waxu na lu amul yombul de mais nag public bi ñu ngi ñuy jàppale te jàppale bi ñuy jàppale mooy chaque fois su ma tëggee ñoom dañuy ñëw fay doo leen gis ñuy ñaan entraîner rien rien que pour contribuer ci suma développement làmb ba ma mën a am finance yi ma mën a fayee personne ressource yooyu nag ñëw ci en additionnel ak parrain yeeg marraine yi may am nag loolu mooy tax ñu ciy génn mais on se plaît pas Dieu merci. arène loolu dama ci féliciter son excellence monsieur Macky Sall président de ak soxnaam surtout nag Marième Faye Sall président de ku nekk gis na ni man làmb yi may def yëpp à travers le Sénégal. moom laa koy pare parrainer toujours at mu jot dinaan dem aussi def bisam Fatick mu ñu ciy jàppale le ministre Matar Ba di suñu xarit moom it barki dem rek ñu gis bisu Fada Diène bi ni mu ñëwee ci suma wetu saison jàppale ñu ci taxawuñu ci ba pare jàppale ñu financièrement ba bis bi toll noonu boo gisee président jël 32 milliards def stade euh, arène nationale bi c'est parce que dafa wan ni am na cër ci cadre PSE bi cër bu ma jox les lutteurs donc loolu moo waral d'ailleurs structure d'état yi fi ne ak yi nga xam ne aussi ay service yi nga xam ne aussi ñoom it dañ fee nekk ñu war a accompagner les lutteurs parce que 32 milliards foo ko def ci ab bijou defuñu ko pour après ñu tëj ko mais dañ ko def pour après nit ñi di fa bëre suba ak ngoon ku mel ni say latir aussi maa ngi koy gërëm comme ni ma lay gërëmee yow mbay Samb donc nga yàgg ma accompagner ci journal boo mënti ne aussi gis naa ne yaa ngi ciy jàppale vraiment loolu aussi mu nekk loo xam ne lu sedd suñu xol la vraiment moo tax ma ne daal. dix jours ba léegi ngay wax ne 32 milliards yooyu vraiment président def boobu président de la maa ngi koy gërëmaat man Sidi Diakhaté ci turu képp kuy sportifu Thiès mais surtout rawatina képp ku yëngu ci mbiru làmb di wax ne nag le DG du port moom it maa ngi koy gërëm di ko sant aussi moom muy koo xam ne Cheikh suma xarit la di gërëm aussi xaritam jarbaatam rakkam muy Pape Lam di wax ni vraiment képp koo xam ne yaa ngi may jàppale ci bis yi may def nii Sidi Diakhaté ngi lay remercier infiniment ba looloo tax sax may mën am réussite ci bis may dem mais di wax waa Thiès population Thiès bépp Sidi Diakhaté ngi leen di remercier bu baaxa a baax a baax ndax bu dul woon bu dul woon ñoom man du ma mën a réussir li may def tey jii lamb yii may réussir ni lamb yu jafelew ku mel ni Ibrahima Codou Fall di suñu xarit di suñu lépp moom it euh, groupe NSS bii nga xam ne tey jii président fexe woon ba mu ubbi moom it ñu ngi koy ñaan ba mu egg foo xam ne dina mën a sponsoriser waat làmb ji bu baax a baax a baax pour que xale yi Thiès aussi di mën a gën a bëre parce que Ibou Fall lépp lu mu sam si ñu ngi koy delloowaat ci biir Thiès kon ñoo ngi koy tendre la main pour mu jàppalewaat ñu ci làmb ji mais Siré Dia daal moom ñu ngi koy defal mention spéciale at mu jot dinañ tëgg fii journée boo xam ne vraiment day fexe ba lu mat ay vingt xale aussi bëri ci te ñun chaque journée ñu bëriloo vingt nit mais bisu Siré Dia dafay nekk bis boo xam ne mbër yi dañ ci sentir seen bopp population sentir seen bopp mu doon une fête de la jeunesse vraiment daal ñoo ngi yàkkamti daal pour que autorités yi ku ne dugal sa loxo ci làmb ji daal. jërëjëf maa ngi lay gërëmaat di la sant dernier moo bi mooy di remercier la presse di remercier les autorités mais surtout képp koo xam ne tudd naa la ak ku ma tuddul mais nanga xam ni si Sidi jaxatee ngi lay gërëm di la santaat bu baax a baax ci bis bu mag bii nga xam ni moom lay war a la le 22 bi ci drapeau Alioune Sarr ministre du commerce ci diggante tur boobu Tivaouane ak métro bu jabaas mais surtout nag ki nga xam ni moom mooy Lat Dior bu Cité Senghor ak Pape Mbaye bu R100 mu ñaari combat yooyu laa ci wax ci dix si ñu war a bëre mu doon bis yoo xam ne ku yeex rek vraiment yaakaar doo